asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne safoo seen bi la di Télé Futur 70 moom mi nga xam ni moo di njiitalu Pastef ginnaaw ay ñi nga xam ni ak i ñoñam ak lenn ci àndandoom ak i militant am tege na leen loxo ca loolee sax gisoon nañu bëri ñi nga xam ni doon doon manifester wu baax ngir ñu bàyyi leen mbir te ginnaaw li nga xam ni moo doxoon ci audience kii di Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko tey jii lu tolloog ci 31 militant Pastef yi nga xam ne jàppoon nañ leen. néegi ni tey juge bi la ginnaaw vingt vingt huit personnes yooyu libre nañ mu nekk mbir bi nga xam ni ak contentement bu baax a baax di amee jëmale ko ci ñi nga xamee ni ñoo di Pastef bi la ak i Ousmane ak ñañam waaye ci loolee sax mun nañ ne trois personnes yi nga xam ni tamit ba léegi bàyyi nañ leen waaye dañ leen bàyyi ni ku mu ne xam ni moo di sursis un mois waaye ci loolee sax gis nañu gis nañu mu nekk mbir ba léegi loo xam ni contentement bu baax la ñuy amee waaye nag ci bàyyin ngi boobu bàyyi ngi bi nga xam ne lépp loo xam ne defaat nañ ko ci lu nu mel daal nañ leen yóbbuwaat fi nga xam ne moo dee prison ci ñooñu sax trois yi nga xam ne nii bàyyi nañ leen avec sursis bokk na ci ki nga xam ni dafa wéy turu Mouhamed Konaté ak kii li nga xam ne dafa wéy turu Joseph ba ci ki nga xam ni dafa wéy turu ñu nekk ñoom ñi la mbir yi nga xam ni ak contentement bu baax amee nañ ko ci wàlla ñi nga xam ñoo di Pastef ak ki nawleem ñoom ñi la nag weddiwuñu benn yoon li nga xam ni ñoom lañ leen di toppee ñoo ko def ci ginnaaw bi nga xam ni dem nañ ci manifestation bi nga xam ni ànduwuñu d'accord ci benn yoon ci muy nekk manifestation non autorisée loolu de lañ d'accord ñoom nangu nañ bu baax ni li leen di justice toppee ñoo ko def waaye nag mbégte contentement la ndax kat lu ñu mënta am delluwaat nañ seen i kër ca loolee sax dañuy dawaat ñëw fi nga xam ne ni moo di ñaar ñi nga xam ne tegoon nañ leen loxo ci yemoo lu toll ak neuf jours nga xam ne ñoo ko def di wuyootu GIGN jàppoon leen ci ñaar ñi nga xam ni ay militant wu ba léegi Sonko lañ kenn ki di nga xam ni moo di sëfëram daal di wuyoo ci turu Lamine Thiam moom mi di xam ni Lamine Thiam mi ak ki nga xam ni moo di Gawsu Sonko moom Lamine Thiam sëfër Ousmane Sonko la ki nga xam ni moo di Gawsu Sonko moom nag ci secrétaire yi la bokk ca loolee sax ginnaaw ginnaaw jàpp bi nga xam ni ñi nga xam ne ñoo di waa GIGN na leen bàyyi nañ leen waaye kat juge nga xam ne mooy nekk ci quatrième cabinet moo leen bàyyi waaye bàyyi bi nga xam ni dafa ànd ak ak mbir bi nga xam ne mooy sous contrôle judiciaire ci ginnaaw jee loolu sax ñoom ñi la saa su nekk dinañuy dem fi nga xam ni fa la mbaxane doone benn pour di présenté wu ñu ngir xam ne ñu xam ni bu baax ñu ngi ci biir Sénégal gi génnewuñu benn yoon ci tur traité waar li nga xam ne moo di Sénégal mu nekk mbir bi nga xam ni tey jii Pastef am nañ ak contentement bu baax ginnaaw bàyyi gi nekkul bàyyi bi nga xam ni libre total la waaye ba léegi moo gën nekk fi nga xam ni moo di prison loolee sax la gis nañu lenn ci sénégalais yi wala leen ci militant wu Pastef doon nañ def yàggul dara di déclaré wu ak di manifesté wu ngir kat ñooñee ñu bàyyi la ñu ñibbi seen kër ak ñeneen ñi nga xam ni joojee sax ñu ngi ci biir prison ba léegi te bàyyee guñ leen wala leen di abonné fi nga xam moo di Télé Futur ndax lu fi information xibaar ñu nekk nii salaamaaleykum wa